أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ñi ngi woon ak yéen ci yonent yàlla ibrahim alayhi salaam bis bi nga xam ne moom ibrahim alayhi salaam dugg na ci jaamukaayu yàlla nitam ya ñooñu nga xam ne ay xërëm lañ doon jaamu ibrahima bàyyi ba ñu am feet ginnaaw ba ñu sàkkoo ci moom na ñëw ànd ak ñoom mu lànk mu bàyyi ba ñu dem mu daal di jël occasion bu màgg daal di dugg ci jaamukaayu yàlla ba daal di daaneel xërëm yépp ba mu des bi ci ëpp doole bu mag bi mu daal di koy wékk pikk bi wékk ko jaas gi sémmiñ bi daal di dem ñibbi këram nag toog di xaar ana lan moo war a xew ñu ne gaa yi dellu si nañ wa baada yawmin tawil min al ixtifaal bi yawmi ciidihim aada haulaai alqawm wa asracuu ila almacbadi liyakulu altaam alladi baarakathu aliha kama zaamu gaa yi balaa ñoo doon dem di génn ci di dem ci seen feet bi dañoo déposé woon ay lekk ci jaamukaay yàlla bi pour yàlla yi def ci barke waxoon nañ leen keroog am na ci ñoo xam ne bokk na ci façon lekk ñu indi ñii ay lañ indi pomme ñii ay banaana ñii ñii ñii ñenn ñu nekk rek la ñu bëgg la ñu indi pour yàlla ji def ci barke bu ñu ñëwaatee lekk moo tax bi feet bi tasee ñoom ñëpp dañoo yàkkamti delluwaat ci jaamukaay yàlla bi waaye ba ñëwee dañoo am mbetteel fa iza bihim yarawna al mufaajaa allati lam tuxtar ala baalihim biñ ne tëll dugg ci jaamukaay yàlla bi dañoo am mbetteel ban mbetteel lañ am dañoo fekk yàlla yépp këpp ñu saam ko ay saab mu tojatoo mokkatoo ba mu des benn yàlla rek bi ci ëppoon doole bi ci gënoon a mag mu taxaw daal di wékku gopp bi wékku sémmiñ bi laqad wajadul asnaama muhattamatan qitaatan sagira wa maa zalika lam yafhamu anna hadha al asnaam la tastatiu hatta an tudafia an nafsiha fa kayfa tuslihu an takuna aliha biñ fekk yàlla yi këpp nekk ay daggiti daggit yu ndaw ay morso morso ba tey comprendre ñu ne yàlla yii mënuñu dara ay xërëm la mënul défendre boppam mënul indil kenn njëriñ qaamu fa qaalu wa hum fi shiddati alghadab ñoom ñëpp ñu taxaw nag ñu mer ñoom ñëpp kenn kenn tardewul kenn manquéwul ñoom ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen ñoom ñëpp ñu mer ñu taxaw wax benn wax lan lañ wax alquran di ñu ko nettali ci suratul anbiya aya 59 yàlla mu ne wa qaalu ñu ne gars yi nee nañ man faala hada bi alihatina innahu la min alzalimin sunu yàlla yi de ku ko def nii kooku tooñkat la képp ku def nii sunu yàlla yi bàyyi ba ñu dem nga ñëw sunu ginnaaw dugg ci jaamukaay yàlla bi jaaneel leen toj yépp ki def lii kii tooñkat la su mata zakaru après nag ñu xalaat tuuti ñu ne anna ibrahima wallazi tawaada asnaamahum ñu ne amoon na benn waay bu tudd ibrahim moo nekkoon fii di xas xërëm yi su lii amee kon moom kese la amul keneen ndax dëkk bi yépp waa jooju dong moo fi contre yàlla yi maadaama lii am na kon moom la ci lañ wax yàlla dañu nettali ba tey ci suratul anbiya aya 60 yàlla mu ne gaa yi nee nañ samina fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñun dégg nañ benn jeune ci biir quartier bi benn waxambaane benn xale bu góor ci biir koñ bi dégg nañ ko bu tudd ibrahim moom moo def lii kooku la ndax déggoon nañ muy ayibal yàlla yi naan lii du yàlla lii du dara lii du tus lii xërëm la lii xeer la lii garab la kon bu fekkee lii am na waa jooju tudd ibrahima moom la mbokk yi ci saase rek ñu joxe ndigal ñu woo soldaar yi ñu ñëw taxaw allahu akbar ci saase rek soldaar yi ñëw lan lañu wax fatu bihi ala ayuni nnaasi laallahum yashhaduun ñu ne dem leen ngeen indi ko ci kanam nit ñi mu taxaw ñu laaj ko mu tontu ñu seet moom la wala du moom fursatun azima li iqamati alxujja alayhim mu nekk occasion nag ibrahima loolu la bëggoon nag am na ko li mu bëggoon mooy dajale waa dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw bu kenn tardé ci benn place boo xam ne moom dina am occasion pour taxawal dëgg pour màbb caaxaan looloo tax bokk na ci méthode wootekat boo amee occasion rek dóoral du yomb boo amee occasion yenn saa yi nga am dëj nga gis dëj bu garaaw yàlla teew la ci profitool yenn saa yi nga dem ci ngénte ci tudd tuddaguñ profitool moo tax ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ nekk ay duaat occasion yi dañ ciy profité Ibrahima nag am na tey fu mu profité pour leeral dëgg yàlla gi laqad sadara al amr bi ihdaari ibrahim alayhi salaam ndigal wadd na jóge ca kaw ca kàngam ya ñu ne nañ ko teewal ci kanamu nit ñi ndax ñépp fekke tey ndax moom la wala du moom qaalu faatu bihi ala ayuni nnaasi laallahum yashhadun ñu ne dem leen ngeen indi ko teewal ko fii ndeysaan bañ demee ba indi ko nag ngir mu leeral kan moo daaneel xërëm yi moom la wala du moom soldaar yi daal di départ jëli ibrahim ñu dem fekk ko këram mu nekk ak ay gàngooram ñi nga xam ne ñoo commencé gëm yàlla ci dëkk bi ñu fekk ko muy joxe dars di jàngale tawxiid ni ñuy kenn la yàlla ñu ñëw rek ne ana ibrahim ñu ne mu ngi nii rek gaa yi yëkkati ko laalul suuf ba ba mu yegg si ñu indi ko rek ne ko puñcang ci kanamu jaamukaay yàlla bi ci kanamu nit ñi rek laaj yi commencé a anta faalta haza bi alihatina ya ibrahim ndax yow yaa def nii yàlla yi wax dëgg yàlla nit nit gis nga nit saa yu bàyyee xelam rek def safaan loolu ngay gis tey nit xoolal nen nen nit dem jënd nen nen pour lan la lekk nga dem ba ci benn sele bi yoon teg ko fa dem ñibbi nen te tey am na koo xam ne boo ko mayoon mu ndékki ko ndékki bu neex ah nga gis koo xam ne ndeysaan day jënd yàpp yàpp dem ba géej laxas ko sànni ko biir géej xoola xoola ñu xiif ñi mu romb nga gis koo xam ne day jënd juróom-ñaari guro juróom-ñaari sondel juróom-ñaari puso juróom-ñaar perkaal juróom-ñaar juróom-ñaar ba mu bëri mu dajale ko ñëw lal ko ci benn mbedd teg ko dem xoola loolu tey ku ko su ko joxoon nit la hawla wala quwwata illa billah xoolal doomu aadama sangoo deret xoolal doomu aadama tuuroo soow soow ah soow mu far xam nga ne lii ñàkk utiliser sa xel la waaye am nga boo doon utiliser sa xel am na mbir yoo xam ne doo ci dugg ñii la moo tax ñu jaamu xërëm ba tey coono gi ñëwal leen ñu ñëw fekk seen xërëm yépp daanu ñu dem jëli ibrahim laaj biñ ko laaj mooy a anta faalta hada bi alihatina ya ibrahim ndax yow ibrahima yaa def nii ya allah innahum ma zalu yusirruuna ala tilka al asnaam al ali aliha bi ñu fekkee yàlla yi këpp ñoom ñëpp dañoo waroon ñibbi jarul woon sax ñuy jël ibrahim dañoo waroon ñibbi direct rek xam ne lii du yàlla wala xam ne lii amul njëriñ jarul woon sax ñu koy jëli waaye xoola ba tey ñu ngi ci continuer hatta wahum yarawna muhattama amama ayunihim donte nañu ngi gis yàlla yaa ngi nii këpp dañoo waroon ñibbi direct amul laaj ñu xam ne lii du tus waaye déedéet parce que nit su amulee xel rek moo bàyyi ma ñooy mooy yem soo amulee xel yaag bàyyi ma yéen a yem dootoo xalaat nit kañ lay nekk nit mooy suy xalaat wax naa leen ne yàgg naa leen wax ne waa safara bokk na ci li tax ñu dugg safara biñ fa duggee bokk na ci liñ doon réccu lan lañ doon wax law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi sair cey ñun buñ doon dégg cey ñun buñ doon xalaat duñ dugg tey safara kon xel pour lan la pour xalaat fa asaara ibrahima alayhi salaam ila sanamin kabir ibrahima ba mu gisee nag ñëpp ne ko ndax yow la ndax yow la mu daal di joxoñ yàlla bu ngand bi ne leen yéen ah yéen kay wax dëgg yàlla di ngeen maa bëgg a tooñ yéen kii nekk ak fii ci biir nekk fii ci biir néeg bi ak ñii ñëpp dem dëkk bi yëpp dem moom dong ngeen ñëw fekk ñëpp daanu moom dong mu taxaw wékku jaasi ji ne ko nii ci kaw est-ce que du kii kii kii taxaw ponkal mi yore jaasi ji wéeg ko sirmiñ bi laaj leen ko ba xam ndax du moom moo def nii gars yi ne tekk xoolante xoolante ibrahima ne leen bal faalahu kabiruhum haza fasaluhum in kaanu yantiqoon ponkal mi kabiruhum ponkal mi moo ko def laaj leen ko na tontu ndax bi ngeen demee moom ngeen fi bàyyi woon ak gaa yi nda yàlla yu ndaw yi kon moom la ñu tàmbali nag ku nekk di xool sa morom axasu yu fakkiruun waaw ah ah lii doy na waar de ah waaw lii moom est-ce que yàlla la est-ce que lii moom mënul défendre boppam lii moom ah lii xeer la lii garab la lii bant la du dégg du gis ah kon naka lañ koy jaamoo ku nekk rek di xalaat di xalaat waaye xam nga fuul fuul baaxul xam ngeen luy fuul xam ngeen fuul mooy mbooloo mbooloo baaxul gis nga mbooloo dañuy yóbbaale koo xam ne xamul sax lu xew benn waaye day nettali fuul ni mu dangereux mu ne Senghor nekkoon na ci benn campagne électorale wër ci biir dëkk bi dem ba Sine Saalum fi mu taxawoon di wax ak nit ñi rek garde corps bi ñëw daal di koy dee ne ko dañoo assassiné amical Cabral léegi Senghor Senghor ne tekk ba càgg mu ne mbokk yi ngeen baal ma dañ ma jox léegi information dañu assassiné amical Cabral nit ñi ne waay waay xam nga tax nit ñi yuuxu tàccu parce que mu ngi doon wax ñuy yuuxu mais est-ce que loolu mu wax dañ war na tàccu parce que fuul moo baaxul gis nga tey boo génnoon nii rek commencé sànni ay xeer da nga gis nit ñi commencé topp la di sànni xeer am na ci koo xam dañ koy jàpp ne ko yow lan la mu ne xaw ma ci dara de lu bëri lool la ci dëkk bi gis nga événement bu am ñi ñuy jàpp seen yoon nekku ci xamuñ ci dara élèves yi doon jàngi la bàyyi li ñu doon jàngi wala ñu doon liggéey bàyyi li ñu doon liggéey wala ku doon jaay teg taabalam commencé sànni ay xeer ñu ne ko nuus yóbbu ñi ñi organisé woon mbir ma dem ñibbi léegi kon am na ci ay ay kàngam bu xaaba yu mag yi ñu ngi ci biir mbooloo mi bi ñu gisee nit ñi commencé xalaat ñu xam ne ñu ngi perte rek ñu daal di yuuxoondoo tëral stratégie unsuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi yàlla bu ñuy dimbali unsuru alihatakum dimbali leen yàlla yi rek nit ñi yuuxoondoo fekk boobu nit ñi demoon nañ ba xam ne dëgg gi jib na mais gars yi daal leen di keppaat ci biir daal leen di indiwaat ndeysaan ñu ne dimbali leen seen yàlla yi unsuru alihatakum balaa boobu fekk ibrahima biñ ne tekk ibrahima laaj leen ne leen kabiruhum bi moo ko def laaj leen ko فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بنين إبراهيم ne laaj leen yàlla ju ngand ji ñoom ñoom ñu ne teg ba caabi ku nekk wax sa morom ñun ñoo tooñ ñun ñii ñoo tooñ ndax ñun ñii ñoo ñëw fekk xeer di ko jaamu ñoo fekk xërëm di ko jaamu ñun ñii ñoo tooñ bu xaa bay taxaw di dégg gis na nit ñaa ngi leen di bëgg a bàyyi ndeysaan fima baynahum lamma alqa ibrahim alayhi lxujja walburhan ba leen ibrahima joxee lay wu leer wu ne weŋ ibrahima ne leen léegi laaj leen yàlla ji ñu ne tekk ba caag ñu daal di tontu ñu ne ko laqad alimta haulaai ma haulaai yantiquun yow xam nga ne yàlla bi du wax xam nga ne kii du wax ba pare nga naan nañ ko laaj mu daal di profité mu ne leen afa taabuduuna min dunillahi ma la yanfaukum shay'an wala yadurrukum uffin lakum waay wa lima taabuduna min dunillahi afala taaqiluun afa taabuduuna ndax da ngeen di jaamu déglu leen baat bi ndax da ngeen di jaamu min dunillah lu dul yàlla ndax da ngeen di jaamu lu dul yàlla maa laa yanfaukum shay'an wala yadurrukum loo xam ne du leen jëriñ du leen lor tey xam nga ne nit ñi li ñuy jaamu ak ñi ñu topp duñ leen jëriñ duñ leen lor au contraire dañ leen di jëriñoo da ngay topp koo xam ne da lay jëriñoo yow yow amatuloo tus loo ko defal moom du la jëriñ dara lu dul yow yaay sonn ci moom ndax Ibrahima loolu la loolu la leen tontu ci Qur'an. ndax da ngeen di topp loo xam ne du leen jëriñ du leen lor ñu ne teg mu ne leen uffin la ko mbas yéen waay xam yéen waay yéen yéen a dof waay dafa metti xoolal doomu aadama bàyyi boroomam di jaamu xeer loolu ngay gis tey li may faral di wax nga gis ku takk lam ngandum lam bu ñuul nga ne ko lii la la mu ne la pour cat la cat cat pour cat waaw nga gis koo xam dañ ko takkaloo béjjén koo xam dañ ko takkaloo xeer koo xam dañ ko takkaloo xaaw yenn saa yi nga gis koo xam ne dafay dem ci benn bàmmeel di tibb ci suuf si bàmmeel bi nga tibb ci kaw suuf si ndeysaan bi ñu ajee dañu dem dañu dem ziyaare ji kër gi yonent bi juddoo nga gis gaa yi naan nii miir bi naar bi taxaw ba jàgg mu ne li sima la ak suuf haza hajar maa fihi faida ya cheikh axbirhum maa fihi faida man leen asalaamaaleykum ñu ne teg man leen naar bi ne li sima la ak xeer yonent bi dafa juddoo fii mais lii sima bi ak xeer bi démb la am démb lañ ko fi indi tabax kër gi léegi yow boo raayee te xam nga li jàkka la dañ fi jaamu yàlla wañee léegi nga naan nii karo nga laal ban tiyaaba nga fi am siyaada yi boo ñëwee naan nii nga gis ku julli ba pare naan nii di dessiné kuruj kuruj kuruj ne nii ay siyaada nga laal lan nga def siyaada nga gis kuy rëdd ci suuf rëdd tibb suuf si fóon suuf nga fóon ma fi fayda amul njëriñ boo bëggee ñaan yàlla da nga yëkkati sa loxo dafa bëri ci dëkk bi loo xam ne tey nit ñaa ngi koy def amul benn njëriñ yeewu suba teel sotti ndox sa bund ka ban njëriñ laa di xëy sotti ci oto bi ndox ban njëriñ laa di tukki di dëgg ci ay paftan ban njëriñ laa day gis kuy xëy daal di bind benn ñaar ñetti ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent daal ne bu ma demee ba ñëw bindaat fukk mu war ko mat nga gis nit ñi di tukki di nuyoo gauche gauche ñu ne boo ñëwaatee ngay nuyoo droite ay caaxaan yoo xam ne rabu àll yi sax duñ ko def nga gis ay borom xel nit njaay ay kilifa ay nit yoo xam ne sa yaram day daw yoo xam ne amul benn njëriñ ana yàlla yàlla mi la la isa saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa isaad jaam ñi bu ñu ma soxlaa man yàlla damaa jege ku ma woo ma wuyu la doo ñaan yàlla moo tax ibrahima profité ci ñoom ne leen yal na ngeen dee uffin lakum wa lima taabuduna min dunillah lu tax ngeen di jaamu leneen lu dul yàlla tey nag gis nga booy wax yàlla kese ci sénégal dañoo gëm ne yàlla kese dafa rittax dana ñu ne yow non yàlla kese kese ah yéen nag li ngeen bëgg kenn xamu yàlla kese kese rek duñ ci boole leneen ah loolu ah loolu loolu loolu wóorul inna lillahi wa inna ilayhi yàlla kese su wóorul lan mooy wóor julit bu ko yàlla kese doyul lan moo koy doy bu la yàlla kese doyul la kan moo lay doy ci kaw suuf xanaa jànguñ yàlla mu ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la alquran ne wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin gis nga ku yaakaar ku dul yàlla sëriñ bi da daan wax ne sëriñ bi da daan wax ne ku yaakaar ku dul yàlla sa yaakaar dina tas yàlla rek ngay yaakaar sa yaakaar du tas koo yaakaar ku dul yàlla bisa ngi ñëw ndeysaan nga am mbetteel ku jàpp ci ku dul yàlla bisa ngi ñëw kooku nga jàpp bàyyi la wala nga bàyyi ko kuy wéeru day wéeru ci yàlla kuy làqatu day làqatu ci yàlla kuy ñaan day ñaan yàlla kuy jaamu day jaamu yàlla baatu jaamu yàlla moo ko moom kenn moomu ko ndeysaan bi ibrahima waxee loolu zahabat hujjatuhum laja'u ila quwa wa sultaan seeni preuve yi ñu amoon yëpp dàqu léegi lan lañu utiliser dafa bokk tey ci méthode yi nit ñi di def tey fekk méthode yooyu depuis démb nit ñi ci lañ nekk gis nga ñi seen maam doon lakk ibrahim seen maam moo rey umar seeni sët ñoo rey umar ñoo rey usmaan ñoo rey ali ñoo rey hamza ñoo rey hasanul banna ñoo rey saydu qutb ñoom ngeen dégg barki démb ñu naan ñoo rey usaama sànni ko biir géej ñi seen maam yi laa wax de ñi doon lakk seen maam yi doon lakk ibrahima ba léegi seen sët yi ñoo fi nekk bu leen yaakaar ne tey jii la ñu commencé xeex diine déedéet xeex diine tàmbali na depuis ba yàlla bindee asamaan ak suuf diggante iblis ak aadam ba nii ñu wàccee nii ci biir suuf si ci kaw suuf si nitu yàlla boo fi gis yonent yàlla boo fi gis waaye yàlla boo fi gis mu naa ni yàlla rek nga gis seytaane ak ay taalibeem jóg commencé indi ay corxo corxo xam nga ibrahim lii mu def nii gaa yi ci lan lañu lan lañu nëbbut fi mu nekk nii laja'u ila quwa ñu dem uti doole ñu uti doole laqatu ci ginnaaw nguur pouvoir comme amatuñu preuve ñu dem ne dañu koy faje doole dañ koy faje force unf wa istimaali quwa wal batsh dañ koy faye ay dóor lan lañ wax ñu ne lakk leen ko dafa bokkoon ci seen aada képp ku contre yàlla yi dañ lay lakk alxuraan moo ñu doon nettali pour ñu doon fexeel ibrahim yan pexe la ñu tëral yàlla mu ne qaalu xarriquuhu wansuru alihatakum in kuntum faa'ilin kii daal leen rek ngeen def bu dee da ngeen a bëgg a dimbali yàlla yi ñu ne ah mu ne da ngeen koy lakk ndax moom dong la ci dëkk bu dee nit ñi noppalu tey sooy wax sooy wax waxu diini ngay wax waxu yàlla ñi nga nekkal lenn dong lañu mën tëj leen ko dóor leen ko rey leen ko loolu rek bu fekkee dañoo rey waa ji li ñu rey ci borom xam-xam kenn xamul lu mu toll ci àddina bi islam boo gisee mu toll nii ba léegi li ñu rey ci borom xam-xam daanaka diine ji deretu borom xam-xam yi ñoo koy suuxat tey bu ñu la doon wax li ñu rey ci ay borom xam-xam kenn xamul nu mu toll partout nag dans le monde dëkk boo dem rek borom xam ba ci Sénégal gii colonialiste yi bi ñu fi ñëwee dañoo raya raya raya ray ba sonn ci ngeen di dégg ñi fi nekkoon ñu exilé leen ñoom Cheikh Ahmad Bamba ñoom El Hadji Omar ñoom El Hadji Malick ak ñeneen da ngay Maba Jaxu Ba ñoom ñoo ko rey Lat Joor ah Samori waxuma la nag adduna bi dañoo yàgg a rey parce que bëgguñu kàddu yàlla samp xoolal jamono boobu ba léegi ñu ngi xeex diine te diine jaa ngi nii buusewul maître ñi sonn rek borom xam-xam bi danoon wax ne islam samsun la taariful maghrib islam jant la xamul so islam deret moo ko suuxat garab la goo xam ne deret moo koy jëmbat deret deret moo koy suuxat moo koy saxal chaque jour dañuy rey te dara du ñu des di dóor di tëj fan lañ làqatu léegi ci doole force ñu ne lakk leen ko wa hada huwa silah ahlul batil lii mooy arme lii mooy arme nitu caaxaan yi liggéey leen ko mu dee rey leen ko embargo leen ko génne leen ko dëkk bi buñ la mayee jabar ñu tas sa sëy bàyyi la cundu nga wéet isolé wu kenn du la faale boo feebaree ñu ne seen xërëm yee la alag ndeysaan ñu dem uti ji nag caax ñu làqatu ci armée caaxaan lii mu ne gaa yi def làqatu ci armée caaxaan far ak moom lii mooy sunanu laa ci anbiya yi mboolem yonent yi yaxya dañ ko rey dañoo rey zakariya isa dañ ko bëgg a rey yàlla yëkkati ko yonent yàlla muhammad waxuma la dañ ko bëggoon rey waaye jàngeen sax ñu ne posone nañ ko ginnaaw yonent bi ñaata saxaaba lañ rey hamza dañ ko rey abu dañoo rey umar usman ali ah ammar yasir sumaya ba ci jigéen sax ba ci jigéen di leen rey li ñu rey ci saxaaba yonent kenn xamul nu mu toll ginnaaw saxaaba yonent li ñu rey ci taabiin ba ci jamono bii nu toll àdduna bi kaso yi boroom xam-xam yi ñoo ko fees ndax lan ndax diine mbokk yi nee na lii mooy message yu yonent yi ak ñi yenu lislaam ci jamono bu nekk nag dañ leen di tëj rek ak di leen rey xalilu rahmaan yulqa fi naar fi niiraan tey nag jàpp nañ xaritu yàlla bi di ko sànni ci safara si comme nee nañ nañ ko lakk nan lañ def dañoo tabax benn benn kondiir boo xam ne xóot na ay kilomètres yaatu ay kilomètres ñu tëj ko moom Ibrahim ñu joxe ndigal ci dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw na ñëpp taxani sànni ci biir mbalk bi kondiir bi nga gis am na ñoo xam ne dañoo feebaroon sax ku feebar naan wallahi bu ma wéree dinaa taxani sànni ci biir kondiir bi am na ñu ne am na ñoo xam ne dañoo jaay seen doom jëndi matt sànni ci biir kondiir bi yàlla moom doon nettali ni gaa yi defee mu ne qaalu ibnu lahu bunyaanan tabaxal leen ko benn kondiir biñ ko defee ba mu fees ak matt ci ay fan biñ ko taalee boroom xam-xam yi nee nañ tàngaay bi lenn mënu ko jege même diggante asamaan ak tàngaay bi picc bu fi jaaree saleuru tàngaay bi da koy rey ndax safara si ni mu amee doole loolu lañ préparé Ibrahim ibnu lahu bunyaanan fa alquuhu fil jahim tabaxal leen ko kondiru safara ngeen sànni ko ci biir nee na bi ñu waxee loolu rek xabar bi daal di tasaaroo ci biir dëkk bi laqad intasara haza al xabar fi l mamlaka kulliha xabaar bi daal di tas nga gis nit ñi commencé jël seeni mbaam seeni sareet seeni gëléem ñii yenu di dajale matt di indi àll bi yëpp lañ taxan dara desatu fi même garab yu tooy yi sax dañ leen gor indi leen dugaleen ci biir pour rey Ibrahim ñu commencé taxan matt mi ay fan ay semaine ay weer ñu ngi ko tëj di taxan matt mi ba ñu demee ba pare ñu xalaat naka lañ koy dugalee ci biir safara bi bañ ko taalee safara bi tàng na tàngaay boo xam ne ñoom ñu ko taal ñemewuñ ko jegee léegi nañu xalaat naka lañ ko ci dugalee benn mbaq lañu mbaq xam ngeen mbaq mooy lasper bu ngand ñu dugal ko fi ñuy dugal xeer yi tawwee ko ba mu tawwee ko ñu bàyyi ko Ibrahima lancé wu ci biir safara bi noonu lañ ko lakkee Ibrahim bañ demee ba dugal ko ba koy dugal ci mbaq gi bañ demee ba pare jibril moo ñëw ci ibrahim ne ko ibrahim mu ne ko labbayk jibril mu ne ko da nga am soxla mu ne ko bu dee ci yow la de awma ci yow soxla mais bu dee ci sama borom xam na li ma nekkee bu dee yow la jibril awma ci yow soxla bu dee sama borom nag xam na li ma nekkee te duma seetaan mbokk yi wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbi sahaaba yi bañ leen ne inna annaasa qad jamau lakum fastahum lu ñu wax qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakil xasbuna allahu wa nicma alwakil julit yàlla rek moo koy doy keneen waru la doy keneen mbindeef la comme yow leneen mbindeef la comme yow kenn waru la doy ku dul yàlla gis ngeen waajooju nga xam ne moo xalaatoon ne ibrahima bu ngeen ko bëggee dugal ci biir safara si mbaq ngeen di ut waajooju mu ngi tudd hay hayzan wala hiizan waajooju bi mu xalaatee xalaat bi ba pare ne gars yi loolu la ñuy def pour sànni ibrahim yàlla dakaa wan na ci biir suuf si suuf si la jox ndigal ya suuf si wan na ko du fii may wax ak yéen suuf saa ngi koy wan na yatajaljalu fil ard ila yawm alqiyamati ba yawm alqiyama wa kaza kana jazaa'u jazaa'uhu min jinsil amal nii la ko yàlla fay moom waajooju ñu daal di jël ibrahima dugal ko ci mbaq gi ñu daal di koy yëkkati xëcc ba mu tawee ku ñu daal di koy lancé ci biir safara bi wa fi tilka lahza kaana imaanu ibrahim bi rabbihi ashaddu rusuuxan min aljibaal ci jamono yooyu ibrahima keroog la gën a am ci yàlla confiance keroog la ngëm yàlla am gën a dëgër safara si tàkk di boy ñoom ñépp ñu taxaw di xool safara si ay matt yoo xam ne taxaw nañ ko taxan nañ ko ay weer ay semaine ay bis safara sa di tàkk mais ibrahim balaa ñu koy dugal jibril solal na ko benn yére boo xam ne mu ngi ko jëlee aljanna yére boobu seetaan ngeen ko bi mu faatoo après moom lañ jox ishaq après yére boobu moom lañ jox yaqub après yére boobu moom lañ jox yusuf yére boobu mooy yére bi nga xam ne moom la ñu fompe bëtu yaquba mu daal di gis ba mu gumbawee yére bi gudd na fan de xam nga lu tax yére bi aljanna la jóge moom la ko jibril solal safara si mënulu ko dërëm ndeysaan borom bi tabaraka wa taala mu ne ba ñu sànnee ibrahim ci biir safara bi safara bi di tàkk gaa yi taxaw di xool borom bi ne xul naa yaa naar kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yàlla ne safara si su ko yàlla ne woon bardan rek sax du nekk jàmm su yàlla ne woon safara si seddal ci ibrahim kon dina sedd ba mu rey ko waaye da ko ne seddal nekkal jàmm kuuni bardan wa salaaman seddal ba pare nekkal jàmm li garaaw mooy ibrahima a ngi toog ci safara si safara saa ngi tàkk gaa yaa ngi koy seen muy naan ataaya gis nga chaque jour noonu yàlla yi dañuy fexe ay pexe yoo xam ne da leen di jural gàcc xoolal événement bi xëy bari xew barki démb rek ñëpp ci rus même ñoom sax seen borom xam-xam yaa ngi leen di commencé di leen critiquer daa leen vraiment li ngeen def daal amul amul sax fulla amul fayda yéen a ngi mel da ngeen yaakaar ne adduna bi ay ay nit ñi ay carton lañ wala nit ñi duñu xalaat xoolal ñii ñii ñëpp xoolal liñ pexe ñu gis waa jaa ngi toog ndeysaan nekk ci biir safara si safara si di tàkk te flamme yi mënulu ko dërëm lu tax safara secret bi ciy lakke yàlla moo ko yor safara du day lakk waaye safara yàlla moo koy joxe ndigal mu lakk paaka day rey yàlla moo koy jox ndigal dafa am secret de secret boobu la yàlla téye yàlla da leen doon won kàttanam yàlla mënoon na indi asamaan si mu taw safara si fay wala mënu ko woon yàlla mënoon na déborder géej gi géej gi ñëw fay safara bi wala yàlla bi ñuy kosat almet bi di teg yàlla mënoon na wax bant yi bu leen tàkk wala safara si bul tàkk tooyal almet bi waaye yàlla da leen doon wan kàttanam subhanahu wa taala ndax moom mooy borom kàttan mu bàyyi mu tàkk waa ji toog ci biir safara si def ko tus loolu lu muy tekki mooy boo nekkee ci dëgg jarul ngay ragal dara jullit ñaar moo war a nekk ci kanamam nga samp kàddu yàlla wala ñu rey la nga dugg àjjana moo tax saxaaba yi kenn mënu woon xeex ak ñoom suñ daan dem dañ naan na dëgg samp wala ñu dem aljanna ndax ñoom seen seen jubluwaay mooy na dëgg gi nekk su dëgg gi nekkee liñ bëggoon am nañ ko su nekkul ñu rey la ñu dem aljanna est ce que perte nañ imma nasra wa imma sahaada loolu lañ doon wax yàlla may ñu ndimbal ñu samp kàddu gi wala yàlla rey ñu ñu dugg aljanna ko kenn mënul xeex ak moom xaali daraan wax gars yi ataytukum bi qawmin yuhibuna al mawtu kama yuhibuna al xayaa ñii nekk sama ginnaaw de soldaar yi ni ngeen bëggee dund yéen ñoom noonu la ñu bëggee dee julit buy dem xeex day tàggu jabaram tàggu yaayam tàggu waa këram ne leen mën ak yéen nañ daje aljanna yéefeer buy xeex danaan à tout à l'heure sama reer bu ko kenn lekk sama yére bu kenn laala sama armoire bu kenn ubbi ah dencal leen ma caabi ji maa ngi ñëwaat léegi moo tax bu ñu pertee rek am problème jullit nag moom buy dem danaan man ak soxnaam yeeg doom yi nañ daje aljanna am na xale bu doon xeex yi yaayam da ko ne bul musa daw soo demee na nga joxe sa bopp xale bi li jaaxal amirul mu'minin mooy dafa tuuti bi mu ko gisee armée bi dem mu topp ci da koo woo ne ko yow foo jëm mu ne damay xeexi mu ne yow mënoo xeex rek xale bi daal di ni benn fett daal di dóor benn yéeféer yéeféer bi dee mu ne gis nga mu ne ah yow mën nga dara nañ dem ñu dem balaa ñuy yegg xeex bi commencé am ko ko fett mu dee bi mu faatoo ba ñu suul ko dañu gis picc yi jóge kaw asamaan daal di koy jël yóbbu ah amirul mu'minin daal di yéemu lii di musul am ci histoire nit faatu ñu koy suul picc yi yóbbu ko kaw asmaan bi xeex bi jeexee amir daal di ñibbisi di wër kër ñoom xale bi ba mu ñëwee fëgg yaayam ne ko kokkan la mu ne ko amirul mu'minin mu ne loo may doyee mu ne dafa am laaj yu ma lay laaj mu ne ko duma ubbi lu dul ma laaj la sama doom dafa dee wala dafa shahid dafa dee wala dafa shahid ne ko loolu mooy lan dafa dee wala dafa shahid mooy waxu lan mu ne bu dee dañ koo jam ci kanam dafa shahid bu dee dañ koo jam ci ginnaaw dafa dee bul ma jaale amir ne ko dafa shahid parce que ci kanam lañ ko jam waaye amir ne ko des na beneen laaj de bu ma la war a laaj man mu ne lan mu ne dañoo gis sa doom bi mu faatoo ay picc ñoo jóge ci kaw asmaan wàcc ñoo jël ko yóbbu ko rek yaay ji daal di sujjóot daan na ñaanam nangu na xale bi bu daan naafila guddi dernier sujjóotam da daan yàlla da daan ñaan yàlla yàlla yàlla nag ma defal yowmal qiyaam bu nit ñiy dekki di génn ci suuf si man ma dekki jóge kaw asamaan yowmal qiyaam bu nit ñi di dekki di génn ci biir suuf si moom asamaan lay wàccee direct ñëw fekk si nit ñi ci suuf si ci biiru picc yi lay génnee mbokk yi dëgg fu mu nekkoon ba léegi foofu la nekk mosul bougé ñi jàppoon ci dëgg ba léegi yàlla mi ngi leen doon defal lam doon defal nitu dëgg démb yi dëgg yàlla ni mu doon nangoo ñaan yàlla ni mu doon nekk ci xolu nit nit ni mu doon amee yaqiin ci yàlla am kóolute ci yàlla ba léegi mu ngi am yàlla mosul bougé maître gis nga alxuraan yàlla saa yu sigi bu waxee dara pare danaan inna kazalika najzil mënoon naa wax ne kee rek laa koy defal inna kazalika najzil gis xol aaya bi wa man yatawakkal ala allah waxul diw wa man képp koo xam ne rek képp koo xam ne kon mbir yi kenn moomu ko xam nga kan moo ko moom mooy ku jóg jaar ci yoon bi rek bokk nga ak ku mun doon amul couleur du ñoom diw du sant du xeet du melokaanu yaram képp ku jaar ci yoon bi rek li gaa yi amoon démb nga am ko wattabi sabila man anaaba ilayya ndeysaan mbokk yi gaa yi dugal nañ ko ci safara si yàlla mu ne qul naa yaa naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim dugal nañ ko ci safara si yàlla ne safara si nekkal set seddal ëmbal jàmm ñeel ibrahim alayhi salaam ibrahima safara si la ko nekk ci moom jàmm ak salaam ñu yërnu ci safara si ñu gis ibrahima toog ci biir buum yi lakk na buum yi takke woon tànk yi lakk na buum yi yeewoon loxo bi lakk na yére bi lakkul kawar gi lakkul dàll yi lakkul dara lakkul ci moom yaram bi lakkul te buum yi yeewoon tànk yi ak loxo bi lakk na kawaru yaram bi sax lakkul yére bi mu sol lakkul dàll yi lakkul waaye buum yi ñu ko yeewoon nga xam ne ci ñoom la jóge woon dafa lakk biñ koy biñ koy sànni dañoo yeew tànk yi yeew loxo yi tëmbal ko ci biir moo xam ne yéeféer yàgg naa soxor ah yéeféer yàlla moo wax dëgg la tajidanna asadda nnaasa adawatan lillazina amanu al yahud xam nga suñu problème mooy ñun dañoo bàyyi alxuraan mais bu fekkoon ne alxuraan rek la jullit yi tey gëm kon du ñu am mbetteel ci lépp lu ñu dégg yéeféer def ko wala ñu gis ko du ñu am mbetteel xoola ibrahim dañ ko taal safara dugal ko ci muy dund taal safara muy dund ñu dugal ko ci lan moo gën a garaaw loolu bu fekkoon dafa ànd ak yàlla kooku ban dee lay dee ah yaxyaa dañ ko dàq mu dugg ci benn garab yéeféer yi ñëw wër garab gi juróom-ñaari yoon ne mu ngi ci biir xam nga nuñ ko def dañoo siye garab gi siye waale ko mu nekk ñaari ngàllit gis ngeen isaa nuñ ko doon def bu doon du yàlla moo ko wallu yëkkati ko kaw asmaan gis ngeen nuñ koy def ndax kamu fa nekkaloon ki ko fi doon feeñal moom la yàlla jël kanamu isaa mesaal ko ko biñ ñëwee ñu daal di koy jàpp rey ko gis nga biñ ko rey ba pare nan lañ ko def dañ ko wékk ci kaw pour jëm ko toroxal yéeféer di yàgg a toroxal jullit loolu yàgg na loolu du léegi nii ngeen di gis ni mu commencé yàgg na yéeféer sagoom ci jullit mooy su ko jàppee na ko def loo xam ne ñeneen ñi bu ñu gisee dañ naan nañ nañu bàyyi fekk xamuñu ne loolu ndaw si ndaw si keroog ba ñu taalee xutila ashaabul uxdud ñooñu ngeen di dégg histoire ashaabul uxdud bi ñu taalee safara si jël dëkk bi di leen dugal di leen dugal di leen dugal ba mu des ndaw si ndeysaan mu ngi boot liir bi ñu ko ne dugal ci safara si mu taxaw ci buntu teen bi xool gis safara si di tàkk mu tiit ndeysaan mu ñeewantu doom ji liir bi ci ginnaawam liir bi la yàlla waxloo liir bi ne ko yaay duggal ci safara adduna bi ndax yàlla musal la ci safara àllaaxira bi mu ne pëncam ci biir xam nga chaque jour yéeféer moom li muy xalaat mooy bu lay rey wala mu lay mu lay lakk moom mi ngi lay def lu metti kii da ne woon da ne woon doomam asma bintu abu bakr dane woon doomam abdullahi ibnu zubayr fekk mi ngi doon xeex ak benn góor bu tudd xajjaaj mu ne yaayam yoo xam naa ne danga ñe danga maa ñeewant kii moo ma ëpp doole mu ëpp doole ñi ma àndal te dafa soxor te xam naa ne bu ma jàppee dina ma rey te su ma reyee dina déema def sama yaram loo xam ne dina la mettital yaay ji ne ko xar buñ ko reyee ba pare suñ koy fees ak di ko toj du ko yëg est-ce que dégg ngeen wax bi xar boo ko rendee ba pare fees bi mu koy fees est-ce que day yëg métit bi toj bi ñuy toj jël sémmiñ bi di toj yeex yi ndax day yëg métit bi suñ koy lakk ndax day yëg métit bi mu ne ko doom demal mu dem effectivement ni mu ko waxee woon noonu la amee buur bi daal di koy jàpp rey ko xam nga bu mu ko rey nu mu ko def da koy wékk da koy wékk ci kaaba gi wékk ci kaw kaaba gi da ko wékk daal di wooyu yaayam asma bintu abubakar mu ne yaayam li ma def kontaan nga ci yaayam ne yàq nga sama àdduna doom ëllëg àllaaxira mu yàq sa àllaaxira yàq nga àdduna mu yàq sa àllaaxira maanaam arrêté nga dundam àllaaxira insha allah day yàq sa àllaaxira safara nga jël gis nga ndaw soosu tamit ni mu amee imaan loolu laa leen di wax ne ku am imaan ay caaxaan du ko dellu ginnaaw waaye boo bëggee àdduna bëgg nguuru àdduna bëgg a jaamu yàlla mënul nekk yàlla rek ibrahima ngi nii ñu dugal ci safara yaakaaroon ne day dee yàlla mu ne wa araadu bihi kaydan fa jaalnaahumul asfaliin namoon nañ ci moom ay pexe yàlla nee na ma def leen ñuy ñu perte ñoom ñoo féete suuf ndax genn wàllu dëkk ba yépp topp na ibrahim ci imaanam boobu mu amoon ibrahima daal di génn dëkk ba daal di gàddaay daal di hijra incha allah mbokk yi ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala foofu la ñuy yem tey ba àllarba bii di ñëw incha allah salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu